benn événement religieux buñ doon couvrir mais jour boobu dafa fekk affaire yi dafa taw taw boo xamantene dox ndox mi bëri na ba nga xamantene ba ñuy escorter auto yi pour ñu dem ñun xamuñu woon fi ñuy jaar on était parti à l'aventure comme ça di jàll ci biir ndox mi fu sa tànk duggoon wala kii bés sax garaawul parce que mission bi moo jour boobu aussi voilà <laughs> marqué nañu voilà parce que yaa ngi sol dram tu yeeg di daw daal yi fees dell yëre yi tooy <laughs> daw xam <laughs> def en général. ok donc vous vous faites un duo quoi. Mm-hmm. c'est duo de choc. c'est ce que vous vous appelez ah mais carrément on est choc hein. pas problème ça. soxor ah non soxor nag amul moom loolu moom ça dépend rek ñoom <laughs> ay nitu jàmm lañ gis nga suñu réew yi moom wax yàlla fu ñu dem moom la ñu kii non pas soxor mais xam nga xam nga xam nga comme ni ñuy wax rek ñun suñu liggéey rek la ñuy def ku ñu ko nangul ñu ko tegee ci yoon tranquille amuñu problème ak yow mais du moment que nga ñëw bëgg ñu jaay leen wala bëgg ñu wan doole parce que tamit comme niñ koy waxee rek milieu bi dafa xaw a jaxasoo parfois nga ñëw gis ko xam dafa lay bëgg neewal doole wala bëgg la kii là tu es obligé de réagir <laughs> waaw mais sinon dëgg yàlla moom voilà amuñ benn problème. <laughs> comme ni mu ko waxee rek parce que des fois da ngay gis koo xam ne ñëw jéem la tuutal parce que danaan moom góor la yow jigéen nga mu lay jéem a jaay doole wala affaire yow di la jéem a tuutal mais moment boobu moom foo nga xaw a réagir tuuti mais moom ça dañuy dund comme ñëpp rek. ni la nit ñi di considérer ak yooyu en tant que jigéen ñu gis la pour jox la euh, li li ci war dafay jafe mais boo imp boo imposé woo ñu xam lan lan moo la tax a jóg ak yooyu rek mën naa jàll. en tant que jigéen pour un début c'est pas du tout facile parce que nit des fois dañ lay jéem limité parce que en tant que jigéen dañ naan non jigéen warul def lii warul def lii wala affaire mais machallah, allah daal boo ci nekkee di nga xam carrément lépp daal baax na fi fi góor góor baax man avantage rek laa ci vraiment mon avantage euh, la ci gis du début à la fin vraiment la même chose avec ouverture pour porter yu bari. dina la jàppale si lu bëri aussi comme ni mu ko waxee euh, te comme ni mu ko waxee rek dina la ubbil daal bunt yu bëri macha mhm, allah. man pour man volonté la rek luñu bëgg lu lu lu nit bëgg def mom bu ci défé volonté waaw fay dem té rawati na nak bi nga xamanteni ku melni ñun ñun lool passion la ci ñun parce que depuis bas âge dañuy dañuy pratiquer les arts martiaux. ci jeunes yi la dal da ci juddu màgg ci évoluer ci ba nii ñu toll aussi ñu né pourquoi pas jéem top tank pa bi dal jéem def comme mom parce que dafa yàgg nek amox ci ñun dal bëgg yàgg bëgg sol affaire yoy nek ci sport yi di voyager compétition un peu partout loolu moo tax. ñun dañ doon sob ci côté bob, côté sport lu nekk da nga koy laal da ngay laal taekwondo karaté jóge foofu dem ay natation affaire yooyu noonu donc bi ñu découvrir carrément euh, Krav Maga ba fekk pa bi mu ngi woon ci affaire sécurité bi aussi euh, ak yooyu ñun aussi c'était c'était pas difficile que ñu kii ci ñu nekk ci rek avec euh, Wally Seck concert am bi mu doon organisé mhm. Grand Théâtre on a été là-bas